dem leen wax ak seen coalition yi te bàyyi wër di duur wër di duur joxewul majorité assemblée nationale. bon asalaamaaleykum wa rahmatulah patriote cher patriote ñu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare seen mbokk la professeur Lamine Darou ñu ñëw ci informer opposition bi nga xam ne day wër di duul ba information yi da koy rëcc bu soobee yàlla du leen rëcc. li nga xamante ni direction générale euh, des élections communiqué bi mu génnee dinañ leen ko wax ba mu leer bu ko défé ñin jël seen matuwaay ndax élection yi par la force da ngeen ci bok parce que depuis ñu tok ci réew ba légui plateau plateau tok ngeen ci di duul naan askan wi bayé nañ ma légui nak communiqué yi danañ leen ko wax muy leer ci yeen ngeen dem defi seen coalition wala seen parti wala seen personne indépendant ñëw ali ali ali ñëw ci code électoral bi ñu dem élection ñu téegal seen ma ngeen xam tok buddi seen i ben par ben la direction générale des élections informe le parti politique le parti politique légalement nous nga parti légal coalition de partis légal personnes indépendantes conseil constitutionnel le 10 2024 confirmé disposition de articles L37 alinéa 6 L175 alinéa 2 de code électoral et des articles 4, 5 et 6 du décret numéro 2024-1981 du 13 septembre 81 du 13 septembre 2024 qui pourrait la élection législative anticipée du 17 novembre 2024 qui euh, opposition les dispositions de code électoral relatives aux paranas parrainage yi n'applique pas n'applique pas le paranas, Bougan, y'a ngi ndagar wala loolu la lolo loolu la loolu wax le le le montant de la coton des dernières élections législatives madame li nga mom lañu joxe ci ko par muy sa garantie liñ joxe won ci élection législative yi jàll rek lañ ci laajaat kon su ko defee ngeen ngeen gawal ko kon su ko defee loolu mooy li nga xamanteni si bi nga xamanteni def nañu ko kon li ngeen doon wër di dul di wër di katch ne askan wi bàyyi nañu né ngeen xol li te ngeen dem ja le gëna a gaaw ngeen préparé wu te préparé wu te ñew soob yàlla seeni ko buddi ben par ben inshallah rabbi da dem leen wax ak seen coalition yi te bàyyi wër di duur wër di duur joxewul majorité assemblée nationale